ها ظلمات salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Gueye Mouride section Touba daayira Nasru wilaya nekk responsable affaire sociale ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp. ab ouvrier laa damay karo maa ngi ci karo façade tellement fi yéen ma fekk nii may liggéey ci kaw safa waaw métti mi maa ngi ci dugg l'an 2000. l'an 2007 laa ci dugg ndax fin 99 laa jógee ci daara ji ñëw rek sama papa dugal ma ci ma dem jàngi métier. am na yoo xam ne dañ leen a liggéey pour miir. Mhm. mais nag yëpp ko man moom. sans mhm. départ ci yow mi ko bëgg ak ni ko bëgg a liggéey rek. mais karo yëpp ko man mais am na yoo xam ne dañ leen a pour ñu nekk ay karo façade. Mhm. comme cent bi nga xam ne vingt cinq sur quarante lay doon wala trente sur vingt wala vingt vingt yu bëri am na ay façon da ngay loué ay safo. fay xaalis ñu monteel la ko nga ñëw mën cee taxaw liggéey normal su fekkee nag problème mu fii léegi yooyu otage yi moo ciy gën a kii souvent bu fekkee dafa jege comme 2 mètres autour bi soriwu ko boobu moom engagement boobu duñ ko mën a jël parce que bakkan bi lañ gën a a soxla ci xaalis bi daal waaw liggéey dafay toll foo xam ne technique lay laaj du souvent day bëri ay nit yoo xam ne bu dee ci suuf la da nga mën a jël ñu bëree bëri ñu liggéey mais su fekkee yu demee nii nag daanaka ay ñaar ñett wala ñeent nit ñoo koy mën a def parce que du liggéey bu ñu yàkkamti moo tax li ci gën soxla mooy mu doon liggéey bu baax waaw liggéey carrelage moom noonu lay demee en général. waaw soo ma bëggee jot da may woo ci sama ñaari numéro yëpp am naa ko mooy Orange Tigo euh, am na 76 335 93 83 am na 77 130 61 77. suñu su fekkee am nga WhatsApp tamit boo arrêté numéro Tigo bi rek mooy sama WhatsApp incha allah loo ci bëgg di ko ci man a am. xanaa di ñi ma fekk si rek. ci li ñuy def nii doon lu am solo ak yaatal gi ko nar a yaatal euh, maa ngi leen ci sant bu baax leen gërëm di leen ñaanal euh, di wax ne li ñu bëgg yàlla leen ko yàlla defal ñi may àndal nag dama leen di sant ñoom di leen gërëm parce que heure bu ma leen woowee dañuy ñëw moo xam guddi la wala bëccëg jërëjëf waaye <laughs>